jaagi jëfati mbokk yi woy ànd ak seetaan déglu mbégte ñu daal di dellusiwaat ak yéen ni ñu ko di baaxoo defee rek saa su ne su waxtu mayee ñu fas yéene jukki ci leen loo xam ni facultéef lay doon ci mbokk yi déglu ak a topp tey ñu daal di rek mu fas yéene indiwaat beneen facultéef bu jëm ci wàllu hypertension hypertension xam ngeen ne bokk na ci li nga xam ne dafay faat lool ci réew mi waaye di indi jafe-jafe lu bari ci réew mi waaye mu am ci ay njeexital yoo xam ni ñàkk koo xam yenn saa yi mu indi la jafe-jafe moo tax ñuy wax mbokk mi soo yëg bopp yi metti wala nopp yi riir wala ba di lëndëm del faratal di dem xooli sa tension gannaaw ba ñu la ko waxee ba noppi nag soo bëggee mu dëddu lu jëm ci wàllu hypertension wutal li nga xam ne moo di cinq xobu olive xobu olive cinq xob ngay jël nga baxal un litre dooy dem demi nga daal di ko ci def soo ko ci defee nga di ko naan régulièrement incha allah soo ko defee ñetti fan nga gis ne tension bi day normal ci kàttanu suñu borom su boobaa nag lañ lay tere moo xam yàpp guddi geeg xorom seek ak yeneen ni nu mel nga moytu ko soo ko defee rek mën ngaa dund ba dund gu neex te doo am benn jafe lu jëm ci wàllu hypertension abonné leen suñu chaîne YouTube Biorahma ngir